jërë ngeen jëf ku sa yaxu bopp réer da fëgg sab kàng kàng fóore yu bari ci langu politique gi jàll ñu ci parrainage bi l'observateur nañu deuxième tour contrôle parrainage yi fukk ak ñaar ca ñoom ñoo ca jàll muy Rose Wardini di Idrissa Seck Alioune Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed dañu leen a tëye bokk ci ñoom Aminata Touré Abdoul Mbaye Bougane Gueye Dany Abdourahmane Diouf ak Souleymane Ndéné ci candidat yi ñu rëkkale ca parrainage ba l'observateur gis na ci ñoo xam ne fi la ñuy faxasu ci élection présidentielle ci réew mi limub candidat yi jàll parrainage yéenekaay bi nee nañu toll nañu ci ñaar fukki candidat ak benn ñu war lijjanti di nag yeneen yi ci des ngir mën bokk ci présidentielle yi 2024 yi liste bu candidat yi ñaar fukki fan janvier ca la koy xam Vox Populi ñu waroon a jaaraat ca kanamu commission contrôle parrainage am na ci ñoom fukk ak ñaar yoo xam ne rëcc nañu ba jàll parrainage am ci ñetti ancien premier ministre yoo xam ne matle wuñu muy Abdoul Mbaye di Aminata Touré di Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom ñett ñëpp faxasu nañu ci présidentielle 2024 ñoom ñett ñooñee newoon fi ay premier ministre di PM journal Le Quotidien ni mu leen tuddee mooy PM petit modèle muy Jules Ndéné di Abdoul Mbaye di Mimi Touré journal Tribune bi candidat bii di maître El Hadji Diouf la bokk jàllul Bougane Gueye Dany ci la bokk jàllul Amadou Ly Akile ci la bokk jàllul ñu jàll ci xët njëkk journal bés bi le jour xooli fa li mu tuddee effet secondaire ci contrôle parrainage bi mi ngi ñuy wax it défi xaar état bu Sénégal ci organisation élection yi ak xaalis ba ca war a dépensé ndax ci élection présidentielle yi defoon nañu ci organisation élection yi lu toll ci fukki milliards ak ñeent ja dégg ñu wax muy Boubacar Camara di Déthié Fall di Cheikh Tidiane Dièye fukki candidat ak benn yi jàll ci deuxième tour contrôle parrainage enquête yéenekaay mi ngi ñuy baaxe secret yi leen may ñu jàll ñu jàll ca palais ba ànd ak yenn ci yéenekaay xooli ndajem remise drapeau bi amoon démb ci diggante président de la république ak gayndey équipe nationale football bi doon dem ca coupe d'Afrique ba ca Côte d'Ivoire le mandat nañu président Macky Sall jox na démb gayndey raay réew mi di drapeau national bi xamal leen ni gi la yoon du manko wuti ndam li waaye manko wutiwaat ndam li doon recours yéenekaay mel na ku ci sukkandiku ba tax mu xëy tënk ne gaynde yi mission conquête la ñuy defi ca Côte d'Ivoire la bind nañ jiitu réew ñaax na gaynde yi dojj na leen soleil national ne ko ba xamal leen ni ne fa ngeen nekk biit bu ngeen dugal xam leen ne ñun ak yéen ñoo àndandoo di ko vibrer sursoi nañu yamu ca ndax moom président Macky Sall gaynde yi bu ngeen fi indiwaatee bi di am neexal boo xam ne ku leen ko waxoon du ngeen ko gëm ñi tàmbalee neex ci ñoom ñooy retraités Casamance Casemajou di directeur général bu Dakar Nav l'Observateur xëy na ko dalal ci waxtaan wu bil yéene kay bi contrat bu ñaar fukki at ak juróom bi ñu séqoon ak état bu Sénégal signé woon ko atum 1999 mu war a jeex ci gi directeur général bu Dakar Naaf ma nga fay leeral li waraloon contrat ba ak la ca liggéey nee na état bu Sénégal amul obligation ci renouveler contrat bi wala observateur ne ko bu ko renouveler wul luy doon conséquences yi Serge Casamajou ne leen loolee état bu Sénégal mooy ki ko mën a évaluer feneen fu ñuy xaar état bi mooy coow li am ci mi na journal L'As xëy na dañu xamal ne lakkati mburu yi ci seen biir ne am na ñu ne dañuy dem ci gréew itam gerewuñu ñi ne duñu gerew bokk ci collectif national des boulangers du Sénégal seen njiit di Xaadim Sylla mi ngi wax ci libération li tax bañ ne duñu gerew nee na duñu gerew te njëgu mburu mi kenn du ko yokk ci réew mi mu yokk ci ne boulanger yi ne dañuy gerew ay sàmba sugum gay lañu yoo xam ne amuluñu benn njariñ secteur boulangerie seen intérêt bopp ak i santas moo leen tax di aalu ak di wax ñu wax ci lu doy waat li ci page 8 bu l'Observateur El Hadji Diaby benn immigré la bu tribunalu Tamba tëj atu ndax ndayam ji ko jur yéenekaay bi nee nañu moom la jàpp dóor ko jam ko ba nday ji mujjee urgence